sëñ Assane nee na mi ngi nuyuwaat mbooloo mi rek sëñ bi nee na mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mu ne noonu ñu ko waxee rek ñu ngi jot ci nuyu nga xam ne fa bàyyi koo muy Cheikh Fallou Fall jëruñu Cheikh Moudou Falilou Fall ak Cheikh Moustapha Fall mi nga xam ne mooy jëwriñam nee na nuyu lu bari den sant bu baax ne di leen jaajëfal ci taxawaay yi nga xam ne ngeen koo taxaw te taxawul ko sëriñ bi ndax mu yi kat loo ci def lu ne sëriñ bi képp nga ko defal nee na kon seen taxawaay yii nee na kon sëriñ bi ngeen ko taxawul nee na loolu nag sëñ baa ngi leen ci jot ay cant ak i ngërëm nee di leen ci jaajëfal itam nee na jaajëf kat li muy tuuti tuuti nee na ku jëful dara du ko dégg de. nee na Cheikh Moudou Falilou Fall daana wax naan jaajëf nee na bu fekkoon ne sama borom dañ koo aj ci taxum kaw nee na mel na ne seen ba koy yéeg nee na jaajëf yu bari moo koy tax a yéeg nee saa yoo leen déggee jaajëf fu mu leen fekkoon jëlee na leen foofee yóbbu fu gën a kawe foofa nga fa ngeen newoon nee na kon jaajëf yi bu leen ko doyal mukk ndax ñun kat jaajëf yi ci la ñuy yéegee na kon nag sëñ baa ngi leen koy waxaat nee na sëñ bi nee na jërë jëf nee na mi ngi leen di siyaar mbokk mii nga xam ne moo fi bàyyeekoo. nee na noonu ñu ko waxee rek dem daanu ci toolu xare bi nee na tool bi mooy Cheikh Ibrahima Fall nee li ci des yëpp ay waar la rek nee na moom nag kon ràññee la ci tool bi ku sëriñ bi ràññee la. nee na li ngay njëkk am ci sëriñ bi mooy sëriñ bi ràññee ñu fu mu ñu gis rek xam ne kii kat diw la nee na loolu nag caaxaan mayewu ko nee na kat moo ko mën a mayee nee na murit bi war nay roy ci mbindeef moomu ñuy wax xorondoom ndax nee na xorondoom li muy tuuti tuuti nee na foo dog aw yoonam ci mbooy gi ne di nga xam ne yoon wi gàtt yoonu xorondoom la te nee na gis nga xorondoom kat ni tuutee waaye nee na dara mayu ko ko nee na lu lu muy yitte rek la nee waxtu xëyee dana ci jaar dem wuti bu amee indi ci kër gi nee na yitte jooji moo ko may yoonam woo wii nga xam lu ñax bari bari bari boo ko dogee ci àll bi dinga xam ne lii kat yoonu xorondom la nee na loolu kat yittee ko mën a maye nee na kon sëriñ maa ngi leen di dénkaat yitte jooji sunu digganteeg sëriñ bi nan nga lu ñu gën a ràññee rek nee na noonu yërmande sëriñ bi di gën a ëppee noonu nee na moom sëñ Cheikh Bey sëriñ bu ko ràññee woon la nee na kon nag yéen seeni xel na ngeen ko dalal ci moom bu baax a baax a baax xam ne la ko taxoon a jóg nee na yóbbaale na ko moom nee na sëriñ bi day wax ne fii ñun wut suñu fi dara dañ fee liggéey si rek nee na koom taxu ñoo jóg doom taxu ñoo jóg nee na wala ay kër yu bari wala ay oto wala ay soxna nee na amu ci lenn loo xam ne da nga fi bàyyi ko ñu ne lii la gënoon a bëgg nan ko booleeg moom nee na loolu doo am. nee na kon nag li am solo mooy sëriñ bi nan fexe ba am ngërëmal sëriñ bi. ndax nee na ngërëm mooy yóbbal bi nga xam ne nee na du jeex ëllëg mukk nee na beneen yóbbal boo ko yóbbu bu dul ngërëm nee na xasal jeex waaye ngërëm moom du jeex foofa de nee na fexe ba yóbbaale baat boobu muy ngërëm nee na sëñ Cheikh Bey mii nag nee na yóbbaale na ngërëm li mu doon sàkku si moom nee na nag sëriñ baa ngi ñaan nee na yàlla ko sa borom wane léegi jëruñ ñoom doon liggéeyal nee na wane la ko Cheikh Ibrahima Fall ne wane la ko Serigne Touba nee na loolu moom mii di sëñ Cheikh am na ci yaakaar. sëñ bi nee na yéen nag jërë ngeen jëfati rek sëñ bi nee li ngeen mënoon def ngeen ko mu bàyyi koo fi ngeen ak ko ba yóbbu ko ci barab boobu bii nee barab boobu kat barabu ndigal la nee na barab boobu mooy barabu wàccukaay yi nga xam ne ku fa àgg rek yow nga borom barab ba ca nee nañ wax nañ ne ba mu nekkee njariñ mun ko mosaan a yóbbu mel noonu mooy jóg taxawul ko boppam bu ko ak jotam mayee bu ko mayul danaan na yóbbu leen ma ko Tuubaa nee na kon foofa mooy barab bi nga xam ne ku fa àgg wàcc nga borom barab ba rek moo ci des nee na foofu nag la mu fa doyalee woon lépp lépp nga fa nee na kon ngeen dalal seen xel ci moom bu baax xam ne li ko taxoon a jóg yépp dana dajeeg moom sëñ bi nee na jërë ngeen jëfati rek nee li ngeen li leen waroon te ngeen man ko nee na yéen wàcc ngeen ci li ci def nag comme doyaloon gëm lool du mo ci def té kooku nag am na ñoom yaakaar baax baax señ bi néna na kon nag jërë ngeen jëfati né señ ma ngi leen di ñaanal taxaway na yaak lool amin nee na lii nag daa mënut a ñàkk rek li ndax liñ gëna bëgg nee na mënuñu ko am lu danoo jaar fii fii sëñ Cheikh jaar. nee na kon nag ñi ñaan taxawaay yàgg lool rek nee na li mënut a ñàkk rek lii kan daa bokk loo xam ne mënut a ñàkk nee na mi ngi ñaan waxtu wuy ñëw nee na yàlla nañu fekk ci baatum ndigal nee na rek mooy li am solo sëñ bi nee na jërë ngeen jëfati sëñ bi nee na jërë ngeen jëfati jërëjëf Baye Modou Fall Gueye sëñ baa ngi lay siyaar blessé ak jëmm ji fi bàyyi ko ci yow fii jëwriñu murid yi sëñ Assane Mbuub it mi ngi siyaar murid yi fa fa mu nekk baatum digal la ko faa téye mu am lu mu téyel sëñ bi moo tax ñu ñëwaaleel ko waaw kon xolom a ngi fi daa ngi jëf murid